alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashaabihi wa xudaamihi sawi ridwaani wa tamkin kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kenn ku ne xam na ne sëriñ Modou Mamoun ay euh, saaliha way juróom ci saalihaat yi la bokk kenn ku ne xam na ne Maamanta Njaay way juróom ci saalihaat yi la bokk moo tax ñuy wax saalihaat ndax kenn ku ne xam na maam Anta lu ko boole ak soxna jaara te soxna jaara li indi bis bii ak bis yeneen soxna jaara moo ko indi waaye la ko booleeg maam Maam Anta Ndiaye xam nañu ko kon nag nu barkeelu ci bis boobu rek ma waxoon ne ginnaaw bu ma waxee ci kër Sëñ Muntaxa ba noppi du ma waxaat la loolu xanaa jublu ci liggéey bi rek Sëñ Muntaxa moom ah nuyoog taalibe yi ak saafonteeg ñoom moom la tuddi liggéeyub Sëñ Tuubaa boo waxee rek mu ne mooy liggéey bi te te noppalu kon nag li ngeen ci bëgg ba tax ngeen def ko ci ëtt bi soxna roq yi Touré mi meññ suñ Modou Rokhaya kenn kon ne xam na ni ci saalixaat yi la bokk moo taxoon eh, moo taxoon ki fi nekkoon ñu di ko wax Mor Lisa di bind lemp yi di bind lamp yi di bind Rokhaya Touré mu yàgg mu ne waaw Rokhaya Touré mii li muy bind ci lamp waaw moom góor la wala jigéen mm-hmm. kon nag jigéen bu ñu demee ba di ko jaawale góor mm-hmm. ah, booba salihaat la mm-hmm. salihaat nag suñu borom da leen jagleel lu bare bari ci alquran. ñu ñaan jigéen ñëpp rek ñu roy ci salihaat yooyu. ndax jigéen kat dana dem ba ñuy wax naan jigéen ju mën góor jigéen ju mën góor muy muy andi mbër mu daan ñëpp kon nag soxna jaaram mooy jigéen ju mën góor moo tax mu andi mbër moo xam ne daan na mbër yëpp ba waral ba waral bisub màggalug Tuubaa ak bisub màggalug Daaru saalihaat yooyu ñoo ko liggéey kon nag lu ci waay fas da ko am ci bis bi ak foo mën a nekk ak foo ko mën a fase foo ko mën a fase rek loo ci fas yàlla ak sëriñ bi dana la ko defal ci barkeb saalihaat yooyu kon nag ñu ngi ñaan fu ngeen bëgg rek ngeen àggale ko fa taalibe yi itam ñi nga xam ne am nañu yéene ñëw te ndigal li tax mënuñoo ñëw wala gàllankoor yi tax mënuñoo ñëw ñu ngi leen sant bu baax te xam ne rek lu ñu nekk lu ne ndigal lee ko ëpp doole ndigalul Sëriñ Tuubaa moom ëpp doole lépp te noonu dañoo fas yéene ko ci ndigalul Sëriñ Tuubaa rek waaw nun defe naa ne nun waa Daaru Salaam bu suñ suñ Muntaxaa nenul sax mën ngeen a woote màggal gi te màggal ko na ngeen ko daan màggale noonu ci suñ bopp noo war a gàmtu ndax màggal yi jiitu màggal yi jiitu màggalu Daaru Salaam ba ci bisub Sëriñ Fàllu bi ba ci laylatul xadar ji ba ci bisub Cheikh Abdoul bi yooyu yépp nañ màggale war nañ caa mën a roy bu nu sëñ bi ne woon ma de bu leen neexee màggal sax ñun danoo war a ñaan ngant te ne ko doon ko dañoo roy ñii nga xam ne ñoo nu jiitu ngir def ko àddee sëriñ Muntaxa sëriñ Tuubaa Muntaxa te xam ne la mu digal màggali jiitu ku ca roy itam euh, da nga am tuyaaba joo xam ne ji mooy ëpp ja am boo màggaloon sax ndax ndigal rek am solo jërë ngeen jëf asalaamaaleykum